1993 mu nelawee fële ca Baye ca diwaanu euh, France moom euh, bàyyeekoo woon France amoon nationalité bu euh, Sénégal nekkoon maire député haut responsable ci UPS di Union progressiste sénégalaise te mu nekk parti socialiste ci atum 1976 nekkoon itam ministre lu bëri yoon ñu ràññee lu bëree bëri ci wàllum politique fii ci réew bu Sénégal ci jamonoy Léopold Sédar Senghor waaye itam ci jamonoy Abdou Diouf jamono jooju sax moom moo nekkoon daanaka ñu numéro 2 bu régime bi loolu la ñuy fàttaliku ak leneen ñu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2002 ci njàppandalu njiitu réew mu woon président Abdoulaye Wade ministre des affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio am signature accord loolu aju rek ci weer ngànnaay diggante force loyaliste ak mutin yu ivoirien loole nag gannaaw bu ñu amalee waxtaan diiru benn waxtu ak lu tegal fukki fan ak juróom weeru octobre atum 2018 ñu ne nag procédure judiciaire bu réewu France yëkkati woon ci affaire bateau Joola muy féeri boobu nga xamante ne rek moo doon daw diggante Sénégal ak bët saalumu réew mi wala sax Ziguinchor te lu toll ci ñaari junniy doomu aadama ñàkkoon ci seeni bakkan dakkal nañ ko ci talaata joojee nag cour de cassation bu Paris xamle boobu li xibaar ñu naan ab long lay définitif Euh, instruction boobee nag ñu ngi ko ubbi woon ca réewu France amoon lu toll nag ci fukki at ca gannaaw rek di nga xamante ne njabootu ñi ci lore woon ñoo ko jiite woon. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre Nations Unies jàpp bés boobu jagleel ko li nga xamante ne moo aju ci wàllu xeex ndóol ci àdduna wërngël képp. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 1993 mu yemoo woon ak génn ak àdduna Jean Collin foofee ca Bayo ca réewu France ku koy amoon ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent amoon ay cosaan réewu France ñu ne nag nekkoon na maire député ou responsable union progressiste sénégalaise bi jur parti socialiste ci atum 1976 nekkoon na ministre a yoon yoon nekkoon nag ku am taxaw ci lépp lu ci wàllu politique fii ci réew Sénégal gannaaw fanweeri at. ku jege woon président du conseil du gouvernement Mamadou Dia ak itam Léopold Sédar Senghor ak njiitu réew ma di abdu Diouf nekkoon na numéro deux bu régime bi Amadou gay nekkoon journaliste te quotidien national Le Soleil di ñëwaat ci ki nga xamante ne mooy Jean Collin. crise boobu amoon dans la police en 1987 si je ah, ba nga xam ne dañoo mujjoon policiers yi fa daan liggéey ñëpp maanaam ñu dàq leen. loolu ci analyse senegal benn la ci musta am te yaakaar ne dana amati waaw kon daan li ñu gën a euh, retenir moom moo di ne c'est un fonctionnaire boo xam ne bii danaan xëy 7 heures te ba doon wàcc di 28 heures loolu ci jamono yi ñu toll defe naa ne war nañ cee def jàngat bu rëy boo ne état itam da nga naan état mooy ministère la bu fekkoon ne li ñuy def ci état yëpp bu ñu xëyee suba mu nekk ci mbedd mi kon état doo ko am. kon buñ toll fii ci réew mi nga xam ne malheureusement lu ci bari noonu lay demee war nañoo jàngaat itam ci sancone boobu ah wax dëgg yàlla moom la garder ay secret ministère de l'intérieur boo ko nekkee xam nga yaa a ngay xam ni xew ci réew mi yëpp lu président xam presque yaa ko koy xamal kon li ngay xam dafa bari waaw mu nekkoon itam nag ci ay ministères yoo xam ne yi ay ministères clés taxul wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne que saax saaxee alal réew mi la mu def ci lenn loo xam ne lu dul noonu man génn kër rek laa xamal Jean Koné et ça se trouve à Thiès c'est maison très modeste moo fa nekk ba léegi waaw. xanaa leneen lu mën a wax ci moom moo dine ah comme moom yàlla defoon na mu nekk un fonctionnaire modèle qui a marqué les esprits kon wax dëgg yàlla war nañ koo dollu njukkeel. Et là, je fais appel à l'État, au président de la République, ab euh, Macky Sall, ne ko kii kat am model la boo xam ne bii war nañ koo joxe en exemple à la jeunesse waaw pour ñu mën am jël ay royukaay yu bari ci moom bokk na ci li ñu mën roy ci moom moo di tubaab la tubaab la teew bu ñu dafa takk jabar jabar bu ñuul muy Marianne Tourpin waaw bi xamee ne itam gaañu na avant mu gaañu da wax ne moom bu gaañoo ñu ngi ko yóbbu njafaat njafaat ci Fatick la nekk foofu lañ ko suul carrière yu bari fa lañ ko doon décidé parce que Jean Collin moom moo yore yore woon dossier yu mag waaw yoo xam ne yi daanaka rek ku ñuy rek moom dana ko xam ah il avait également son mot à waaw loolu yëpp ay qualité yoo xam ne yi def naa ne réew mi fi mu toll soxla na merci beaucoup Abdoulaye Diop euh, Mortala suñu doyen fàttali na ko moom bokkoon na ci euh, mbëbëtam yu mujj mooy bu euh, génnee àdduna ñu denc ko njaafat ci wetu soxnaam di Marianne Turpin mm-hmm. waaye moom booy seetlu tamit Jean Collin ñu bëri dañoo jàppoon nit ku controversé la ndax dañ ko doon tudd ci ay manœuvre politique ba Senghor sax di bàyyil pouvoir bi Abdou juuf ñu nekk moom jamono jooj ak ay Djiboka ak Moustapha Niasse bokkoon nañu ci ñi def loolu ba tey rek ci wàllum ay renseignements généraux ak poste yeeg yëpp ba fi Abdou Diouf toogee tam dañ naan ci ki nga xam ne booy seet sax moom moo doon euh, gérer réew mi daanaka. moo doon buum di buum mi. Mm-hmm. comme niñ ko doon accusé mm-hmm. parce que en fait ñu jàpp ñu bëri jàpp nañ ni moom Jean Collin Jean Baptiste Étienne Collin. Mm-hmm. moom euh, bokk na ci carrière yu bëri au Sénégal moom moo ko nas. ci ay poste mu euh, disons occupé woon mm. euh, c'est vrai que acte fort bu mu posé euh, ba mu génnee àdduna da avant muy génn àdduna dañu woon ñu denc ko njaafat mm-hmm. ku xam njaafat mi ngi nekk ci Fatick mm-hmm. te quand bàyyee la gaañoo bàyyee mi ngi nekk ci Normandie oh, defe naa ci la bokk ak sax Léopold Senghor parce que bàyyee ak Verson mm. ñoom ñëpp ay dëkk yoo xam ni ca Normandie ca France la bokk mm. façon foofu la aussi euh, Léopold Sédar Senghor amoon euh, génne àdduna foofu la foofu la amoon résidence am donc euh, mu nekkoon koo xam ni waa ji wax na ko Amadou Gaye suñu doyen. Mhm. nee na benn kër lañ ko xamee Thiès te kër googu mi ngi nekkee rue Sans Soleil ca avenue Lamine Gueye bi. Mhm. maanaam boo ko rombee da nga naan boo boo ko comparé ke sunu njiitu léegi yi seeni kër danga naan li du woon kër goo xam ni kilifa. bu servir réew mi la pendant trente ans nekkoon ministre des finance nekkoon ministre de l'intérieur occupé des postes stratégiques war na koo am mhm. waaw mu nekkoon vraiment koo xam ni également euh, dafa ancré woon ci terroiru euh, ay beaux-parents mhm. maanaam Marianne Turpin euh, di woon euh, soxnaam moom euh, ay beaux-parents da leen tegoon foo xam ni fu jéggi dayoo la donc muy ko xam ni daal war na servir de modèle mm. mais ku controversé aussi mm, parce que quand même mm. amoon na benn moment ñu gelé activité au sein du parti socialiste dafa mujj sax mu am ay commité de soutien mm. à mm. l'action de Jean Collin mm-hmm. comme ku mel ni Aïda Diong mm. tey ñu ngi ko dégg mu naan euh, day d'accord ci troisième mandat bi nga xam ni ñooñu aussi yàgg nañ ci politique bi Aïda Diong moom moo jiite woon association des amis et sympathisants de Jean Collin tey jii moom moo jiite Razan Razan mooy réseau bi nga xam ni des amis et euh, sympathisants de Aïda Diong donc quelque part euh, am na ñoo xam ni ñi ngi fi nekk au Sénégal selon disons bi ni muy doxee mhm. dañuy changer au gré du vent mhm. te loolu également malheureusement c'est de montrer que mhm. dañuy comme ni koy tubaab di waxee malheureusement nañ ma jéggal ci kàddu manger à tous les râteliers voilà euh, pour pour euh, euh très rapidement Marcel euh, moom euh, xañ na digganteem ak Abdou Diouf mi ngi tàmbalee ñagas ci ay vers 1990 ak yooyu Abdou Latif Coulibaly am na livre bu mu bind sax daanaka mi ngi ci doon évoquer quand même quelques anecdotes lu ci mel ni ba mu koy convoqué Euh, di ko euh, wax ni da koy euh, da koy dàq. Mhm. en fait il faut dire que la pression était quand même un petit peu forte des deux côtés ndaxte membre opposition yi ki ki l'accusait d'être un pro-communiste ak ñi nga xamante ni ñooy même au sein du parti. Mhm. dañ ko dañ ko doon dañ dañ en tout cas dañ ko commencé woon di di contester ci li nga xamante ne moom mooy le quand même l'influence grandissante qu'il avait dans ce dans ce pays là. donc euh, pour, politique boo xamante ne si il était d'origine d'origine euh, française ba pare euh, nekk nekk sénégalais voilà surtout après les indépendances bon euh, c'était c'était un petit peu mal vu pour euh, pour pour, pour d'aucuns donc euh, loolu la fin des années 80 bu def remaniement donc notamment en, en 90 c'était le 27 mars 90 ba ba Abdou Diouf di de 27 à 21 ministres la daal di teggi indi André Sonko la à la place moom ko moom moo ko mujj wuutu ministère de de l'intérieur et puis effectivement euh, man personnellement avec la la famille Turpin de de de Ndiafat donc euh, il y avait effectivement ce ce lien fort là qu'il avait avec euh, avec ce ce sa belle famille donc il était d'abord marié à ki nga xamante ne c'était la nièce à Senghor donc qui s'appelait Adèle Adèle Senghor donc la njëkkoon seel après donc Marianne Turpin et voilà c'était symbolique qu'il qu'il mooy euh, c'était sa dernière volonté que mu euh, que ñu enterré ko foofu ca ca euh, très rapidement Alaaji Malick Moxtaale mi ngi ko doon évoqué sànq ay nit yu mel ni moom xaj na ci wàllum doxalin ak yooyu jamono ji nekk na certainement amatuñ ko daal hmm. en voie d'extinction. waaw bareetul parce que responsabilité yi nga xam ne moom Jean Collin occupé na ko pendant trente ans 30 ans pratiquement euh, nekk na fi ministre des finances ministre de l'intérieur maire de Joal Fadiouth de 68 à 72 donc mu nekk père de la réforme de 1972 et cetera donc lu mu fi liggéey bëri dem nañu ay jamono ba ñu wax ne Jean Collin moom mooy tirer les ficelles mooy def mooy dindi pratiquement moom mooy diriger réew mi c'était l'homme fort du pays mais gisuñu dara lu nga xam ne tey jii mën nga ko ni duut baaraam ci moomeel bu nga xam ne mën nañu lii Jean Collin moom moo ko moom donc nekkuloon nit bu nga xam ne opulence wala gis leen ma wala luxe doon na ko dund. Mm. te bi mu gaañoo aussi de la manière les la plus simple France la juddoo. Mm. mais dañu yóbbu leen ma njaafat mm. denc ma fa. Mm-hmm. bul wane fidélité am vis ah. euh, la bu nga xam ne marqué na l'histoire politique du Sénégal et même du Cameroun. merci beaucoup euh, bu ñuy wax homme d'État ji euh, jamono jooju ñoo tax li ñu nemmeeku jamono ji ay déballage ak ay wax yu ñaaw ak ay xeet yooyu noonu xaj na li ñuy wax yëpp noonu. lu ci bëri du ñu am sax nag euh, preuve loolu moom moo manqué loolu moom moo manqué jamono jii fi ñu nekk ci suñu classe politique bi certainement dañuy jàll ci beneen ponk muy xibaar yi ñu tënk ko ak Cheikh Tidiane